c'est la référence. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi safoo di ànd ak Alfayda FM kaddu gi di bàyyi ko ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé eh, fii ci dëkk bu sell bi di Medina Baye dal leen ak jàmm ma jukkil leen li gën a fës ci bopp xibaar yi eh, quartier Kër Cheikh nag am tiis ca accident bi nga xam ne am na ca diggante Njaareem ak nag Mbàkke juróom-ñeenti jigéen ñoo ca ñàkk nag seenu bakkan ñi ca am ay gaañu gaañu jamono jile eh, ñu ngi ca bërëbu fajokaay ba ñu ngi leen di jàppale ngir ñu may leen ay deret Mamadou Moustapha Mbaye village bu Mignane naka askan wa rango ay morso yu xonq wàcc naka ca mbedd ma naka di ñaxtu ne daal seenub suuf la ñu bëgg a nangu ñu joxoon ca baaram naka mairie commune bu Mbadakhoune tontu naka daal dina ne bi ñoo faytee ca mairie ba daal dinañuy addu ca kaddu yi nga xamante ne askanu Mignane yëkkati nañ ko ca wàllum suuf soosule daañu ca dégg Cheikh Tidiane Diagne Laylatul Katmiya naka ca Léona Niassène ca buntu Zawiya Maam Alaaji Abdoulaye Niass ren ji naka nar a fanweer ak juróom bi lépp lu jëm nag ci wàllum organisation nag lépp daal di na yemb lépp nag loo xamante ne bi tegu na ci li nga xam ne moo di guddi googule dañ ca dégg soxna Ngoone Njaay ñi nga xamante ne bi nag ñoo di liggéeykatu yi nag daal di nañuy génn nag daal di fësal seen ay kaddu ci nag ne salaire yi nga xam ne yàgg nañ koo jooytu ngir ñu daal di leen koy yokkal waaye tontu itam nag am na ca ndax jëwriñ ji nga xam ne moom nañu dénk wàllum urbanisme ak collectivité territoriale daal daal dina cay addu waxi tamit nag lu toll nag ci juróom benn fukk ak benn milliard daal la laaj li nga xamante ne bii ñoo di nguuru Sénégal daañ ca dikk ci biir xibaar yi buñ ca noppee daañ ca toftal xibaaru biti réew ak Alioune Badara Diop tàggat yaram ak Serigne Moussa Kane ndar keppale ko li ci yéene kaay ak Seydina Omar Cissé mbokk yi le bokk ci li fi nar a ruusee ci ay xibaar ngeen taaxidu tuuti ma dugg ak yéen ci yàttal weeg faram fàcce bi gannaaw bàkk bi lay doon xibaar yi ak Mariama Ba Euh, bàkk ba jib naa ba noppi Alfayda FM kàddu gi di bàyyi ko ci dëkk bu sell bii di Medina Baye euh, juróom-ñeent fukk yu toftal la benn ngeen koy teewloo ci diwaan bu Kaolack nangaan Sénégal ak li ko wër euh, tey naka di aljuma fukki fan ak juróom-benn ci weerum août atum ñaari junne ak ñaar fukk la ñuy seen ci machine bi na ma ko junjee woon ca bopp ba noonu lay duggee ci yaatal week faram fàcce bi tiis nag daal di am accident bu am naka ci diggante Njaaxem ak Mbàkke camion la bu dal naka ci benn minicar ba naka juróom benn jigéen ñàkk sa seen pa ci saa si yeneen ñett yi tamit nag hôpital la ñu ñàkkee seen pa bakkan ñi nga xam ne ñoo ci am ay gaañu gaañu nag jamono ji ñu ngi leen di wàllu ngir tamit nag mën a daal di sauver seen i ay bakkan ñu teewlu ci Mamadou Moustapha Mbaye. naqar ak tiis ñeel waa quartier Kër Cheikh ci diwaanu Diourbel la ko war a weesuwul accident bi nga xam ni kon am na ci diggante Njaareem jàpp Mbàkke bu nga xamee ni kon toll nga xuru Mbàkke li ko war a weesuwul de kon benn camion bu nga xam ne mi ngi jógee Njaareem doon dem Touba moom ci boppam moo dal ci ci benn minicar bu nga xam ne Touba la bawoo ñu ngi xamal ne minicar boobee daal Jurbel la dëkk ñëwoon fi nga xam ne mooy Touba ndaxte ñi nekkoon ci biir oto bi daal dañu ñëwoon ci benn njaal bu nu amoon daaru Marnaan ci ngoon si bi ni ñibbi ci lay jéeyi ji am ay xibaar di fees nekkoon bi nga xam ne ci saa si mbir mi am na juróom benn jigéen ñoo ci ñàkk seen bakkan am na sax benn gune gu nga xam ne yaayam la àndal ñu ñuy xamal ne bi loolu amee daal sapeur pompier yi ñëw nañu jël ñi nga xam ne ñooy blessé yi ñu toll ci fukk juróom benn yóbbu leen ci hôpital Henri Locquet foofu daal ñi nga xam ni kon ñoom ñooy saytu seen wér-gi-yaram def nañ seen kéem tolluwaay kattan waaye yeneen ñetti jigéen mujj nañ ñàkk seen bakkan mu ni kon jamono ji ñu waxe yéen juróom-ñeenti doomu aadama ñoo faatu ci boobu accident mbokk yi nag bi ñu jaaxlee daal woote nanu ñi nga xam ne ñoo dëkk njaareem ngir ñu mën ñëw maye seen deret ñu ñu xamal ne mbooloo mu takku takku ñëw na yaakaar yàkkeekuwul ba léegi waaye nag fi mu toll ni ñuy wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo blessé daal sonn nañ lool Mamadou Moustapha Mbaye Diourbel Alfayda FM ñu jaajëfal ko Mamadou Moustapha Mbaye ñaanal ñi nga xamante ne bii daal dina ñàkk seen bakkan ci accident boobulee yàlla xare leen aljana waaye ñi nga xamante ne itam nag am nañ ci gaañu gaañu yàlla yëkkati leen ñu dem ca beneen xibaar askan wa yeewoo nag ca village bu mu Muñege nag bokk ci commune bu mba daxul nag takk ay morso yu xonk wàcc ca mbedd ma itamit nag di jooytu nee nañ daal seenu suuf mairie commune bu mba daxul daal moo ko bëgg a teg loxo te ñoom nag askan wa mbir moomu lee du ca daal di di fësal seenu pa naqar seenu pa génn googulee ka Cheikh Tidiane Diagne. suñu bakkan la ñuy def suñu suuf suñu bakkan collectif des populations de gën dal di rangoo woon ay morceaux yu xonq ba noppi nag wàcc ci mbedd mi ñoom ñii li leen naqari weesuwul seen suuf si ngi caxat caxatee jamono jile lu ni mel nag ñu joxoñ ci baaraamu tuuma mairie bu Mbadakhoune domaine cadastre ak descos ci janoo bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal ak taskatu xibaar yi Yaya Sow moo yoroon seen kaddu. sama kër di fa yeewoo ñu ne ma sama kër gi jaay nañ ko benn nit man mi fa fakkoon dëkk fa ba ñëw léegi ñu ne dañ may sànni ci digg àll bi leen man pare naa joxe sama bakkan suñ ko naree def waaye ñu ko jox ñu defal ko kayit defal ko lépp suñ ci naree def dara daf may rey ba pare soog a dëkk ci kër gi li ci gën a garaaw mooy sous-préfet moo jiite ñëpp sous-préfet Wade sous-préfet bu Mbadaxun ci ayam la fa fekke woon bi mu ñëwee mu ne leen gars yi ni ngeen di def nii seen tappale yi du ma ci ànd kayit yi ba léegi approuvé chef de centre xool intérêt am xool intérêt ñi mu àndal jéggi fa sous di def ay jublul ci acte yoo xam ne nii ay nit ñoo fa dëkk ñu defal leen ay acte ji jaay te ñoom kenn ci ñoom amul droit jaay suuf niñ koy jaayee mooy dañ koo def quota jaalee ko ci géomètre bi. mbir mi ni mel jamono ji nag ak ji na fi nga xamante ne moom moo di ci loxoy yoon na ndax askan wi ak ñenn ci ñi nga xamante ne ay kilifa la ñu te gàllo wala gi ni mel ñu ngay wutali tribunal bu ñu sukkandikoo ci Yaya Sow mi jiite ndaw ñi ci collectif bi ni mel. bi ma juddoo ba léegi musuma amalante ak yoon ñoo jox ñeent convocation teewal le 2 avril la ma waa ji woowoon mooy ba léegi jotuma sama citation maag waa ji mooy xam nañu liñ nekk valable lul zaamari maroon ci Dakar jii benn waa ji bi naan lim sere sofooram moo indi ba fii waa ji jaay ko li ci des bi ma ko waxee mu ne ma lii maccaatu ngénte li boobu zaamare ngi ngéntee président Bassirou Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko ak jëwriñ ñu ngi denk fànn gu ni mel ñu woo ko ci ndege mi nag ñu sàkk pexe ci jafe-jafe bii nga xamante ne ñu ngi koy jànkuwanteel bala moo ëppi loxo wax parce que bugguma jaan romb la nga topp ci watit bi di dóor bu boobaa amatul sens nañ ci wax parce que askan mu ñu gën sonn nañ ay néew doole lañ ay borom doole ñoo xam ne ni am nañ salaire am nañ lépp ñoo fekk ci seen kër yi jaay ko yu teguwul ci fenn bugg nañ ku ñu dimbali am na kon nag kenn koo xam ne ni lim fa yor mën na trente kër mu ñu gën nekk ci commune bu Mbadakhoune boor boobe nag ñu gis ne coowal suuf yàgg na fa te itam bëri na lool lu ni ñu ne dañoo war a auditer suufu Mbadakhoune ndax rangi jum na foofee am déeta suñu suuf suñu suuf suñu suuf lañu soxla Euh, ci ñaxtu boobule sax nag la ñuy desandi ki nga xam ne nag moo di Abdoulaye Sow moom mooy chef de village nag Mouniéguène moom nag indi na ay leeral euh, ci nag ana anam bi nga xam ne boobu nañu bëgg a nangoo seenub suuf ba sax nag mu nga cay xamle téeméer ak juróom fukki parcelle yi nga xam ne euh, jox nañ ko mairie ci ab séddale bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ca commune bu Mbadakhoune kàddoom ti Tidiane Diagne moo ñu ko taataanal. ñu lotissé lotissé bi. plan ñu demandé woon ko mu dem ba ministre. ministre accepté ko mu ñëw. plan hectare bi bu dëkk Dakar moom la ko maire jox mu wàññi pàkk yi ba mu nekk mille cent trente te 901 parcelle mooy plan bi ñu lotise ko ba pare sous yebal ma ñu dem commune bi ñu demee commune ñu indi list bi ñu def ko par quota fii amut commission commission ñëwut fii recensé quota lañ ko def quota bi ñu jox mairie 150 parcelles ñu jox borom tool yi. cent 306 parcelles. mairie Mbadakhoune. ñu jox mu a gën. dëkk lëmm 75 parcelles. ñu ne chef de carré lañ jël. dëkkee nañ 68 parcelles yi mu def set yooyu. wun naa fi ñu fi dëkk borom kër yoo xam ne ñu ngi fi dëkk ak seen njaboot. yo joxe seen photocopie d'identité. pour ñu recenser leen ci sept parcelles yooyu. maire def ko bañ. liñ bu bon mooy set yooyu ma jël ko. ñu mbaalee ma ko man kenn mu am mbaal. kenn mënu maa ger. li may wax nag premier ministre laa koy ñaan président laa koy ñaan su préfet sant naa ko gërëm laa maa ngi koy ñaan préfet maa ngi koy ñaan gouverneur maa ngi koy ñaan affaire bi kat maire la promoteur bi Moussa Diop domaine kadas depuis daaw ba léegi du ñëw ñun nag liñ dugg comme que ñun amuñ 4-4 ah suñ suuf si lañ am di ci béy di ci dund bu ñëwee foqat ñu ko ci suñu loxo jënd ko ay 4-4 di ko takk ay jabar di ci tabax ay étage dañuy ñaan gouvernement bi fi nekk bu bees maa ngi leen ci ñaan ndimbal ñu dimbale ñu ci te yàlla tax man dëkk naa fi depuis 2010 suñu école ci boppam école publique bi ñu fi am dem nañ ba domaine jaay ko defal ci waay benn récépissé maire bi ñu mayee classe ñu koy tabax waa ji dafa ñëw woo deskos deskos ñëw fekk fa maçon bi mu arrêté ko boo waa dëkk bi jóg jàppanteeg élément deskos yi ñu dem si sous préfet ñëw ak commandant John ñu ñëw fi booba lañ dem domaine rectifier ko delloo ñu suñu école ñañu ca joxoñ baaraam nag mooy mairie bu Mbadakhoune tontu nag am na ca ñi nga xam ne nag ñoo di mairie bu Mbadakhoune daal di nañuy tontu askanu Mignane ci kàddu ma Ndour nduur la ñu cay teewlu. ñoom damay wax chaque jour doomu aadama lépp lay wax maam teg ko si yoon ñaare bi teg ko tamit si xam-xam ñoom seen lotissement boobu moo ma jiitu avant que man may nekk président commission domaniale amul benn lotissement mu ne wax ne lotissement bu njëkk am autorisation au niveau de la commune mooy lotissement mu ñu gën lotissement bi nga xamante ne moo gën a jaar si yoon mooy lotissement mu ñu waaye tey yàqu-yàqu buy am ñoom ñooñu waa dëkk ñoom ñoo yàq ndax tey ñoom buñu déggee a def lotissement ñuy wax jàppandal ba pare jaay ko ay nit ne xëy na xamuñ waaye tamit dañuy jaay waxuñ leen leen ñu jaay leen non loti léegi bu lotiment bi ñëwee pare xam tamit tey bu jël ay ñoo xamante ay pen jël ay seen pen yooyu jaay ko ay nit jaay ko ñoo xamante ay innocent wala ay innocent jox leen ko léegi nag lotissement bi am buñ autorisé au niveau ministère ba pare ñoom ñu wëlbatiku nag gars yi ñu jaayoon sonal leen ñu commencé ne ne léegi nag lépp looy attaqué ñun nangu na nga attaqué ñu ne mais ñoom tey loolu ñoo di attaqué woon amul kenn ku ñemee dem descos bi nga xamante ne tey bu ñuy wax problème kenn ku ñemee dem descos wala ku ñemee dem kon tey mën nañu wax loolu ñuy ñaxtu noonu wala loolu ñuy revendiqué loolu tappale lañ ko teg ndax bu leen leeroon ne seen dëgg la lay nekk kon dañuy dem DESCOS wala dañuy dem tribunal la ñoom dem nañ dem DESCOS am nañu waa DESCOS wax xam nañ ko duñ dem tribunal tamit ndax xam nañ ne teguñu ci dëgg ndax dañooy jaay loo xamante ne amul ko ay nit nax leen ba pare bugg nag dugg ci ci média yi ak ci ci télé yi yàq deeru commune Mbadakhoune yàq tamit deeru servité yi loolu nag du fi am ma leen di xamal ne lotissement bi kayit yëpp yu mu war na ko am na autorisation bi ne bi moo ko signé am na ay arrêté am na PV d'attribution am na lépp loo xamante da koy am lotissement mu ñu gën bi am na ko kon boog ñoom bu ñu buggee lu leer nañu ñëw au niveau de la commune bu bu ñu buggee leer nañu dem ci service yi bu nekkee nag wóoluwuñ service yi wóoluwuñ mairie bi commune bi dem Descos lañu dem tribunal nanguñ ba léegi kenn amuy kenn ci ñoom ku nangoo dem Descos Euh, bu ñu bàyyeekoo nag ca Mignane commune bu Mbadakhoune dañuy daal di teeri euh, ca Kanda commune bu kawoon nag diwaan boobu boobule bu ndox xasee ba laal suuf daal seenub jafe-jafe daal di nay teer ndax daal lu jëm ci wàllum ndox moomu lee du am fa mu jëm foos dañuy daal di wal ànd ak xet gu naqari euh, tax nag ba askan wa yeewoo nag ca Kanda ñu ngi koy jooytu te itam nag di ca sàkku saafara ñu jàppale leen ci wàllum kanaan ak ay yoon ndax soxla nañ ko diwaan bu Kanda ak Alioune Badara ñu ngi fii ci bu Kanda gox bi la nag bokk ci commune bu Kahone fii moom bu tawee rek seen jàmm jeex na ndax ñàkkum assainissement bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci yoon bi li poto poto weñ yow loolee doon na li ni sonal na leen lool Khady Diankha maire bi ñu fekk ko ci buntu këram lii moo di ay kàddoom. fii bu tawee ndox mi day fees dell booleeg ndoxi foos yi ñuy ubbi di dem si mbedd mi su ko defee ndox mi wal nga di ko xuus ndox mu salte ngay xuus kay moom waaw ñi nga xam dañuy génne dem marché ak lii génne dañoo mhm. sonn nañ de. suñ classe gi sonn nañ ndax demuñ fenn dara mm-hmm. de ah u dimbale ñu rek dimbale ñu ci ndox mi utal ñu yoonu mm-hmm. dem ak dikk nag dañ koy faral di jànkonteel rawati ñi nga xamante ni ñoo nekk ci yoon boobu lay di dawal li nga xam moo di Jakarta Adama Niang moom mi kenn la si jafe-jafe ñi am moom ñun dawalkat yi Jakarta yi moom bëri na trop dëgg yàlla surtout malaas yàlla ji tey ba pare waaw ah, kilaan yi moom dañuy jaawante moom ay si ñoo xam ne ni prix yoo xam ne ni mooy loolu ndax kilaan boo fi yab na ko 700 wala 400 wala téeméer sax mu am lu kaas te fii yoon yi moom yoon yi moom yaa ma gën a xam yoon wi baaxut. gis nga sekku seeg pax yi ngay dugg moo tax suñu welo yi sax duñu yàgg ak moom yoon bu baax amu fa ñàkkum canal loolu tamit doon na li nga xamante ni nemmeeku nañu ko lool ci doon bu Kanda Abdoulaye Mbaye waaw ñun yàgg nañ Kanda mais toujours jafe-jafe bu ñu njëkk am mooy problème yoon yoon moom moo nekk suñu problème principal parce que bu nawet jotee duñ am fu ñu aw fu ne la ñuy lijjanti yoon pour génn muy ñuy ndugg waxuma la ñuy daal welo nag ñoom dañuy sonn ba bëgg a dee assainissement aussi fii ci parce que Kanda mënul set tant que defaruñu yoon foo xam ne day taa pour mu am assainissement bu baax du yomb dañu am problème boobu souvent parce que tamit lotissement yi tamit demeewul noonu te aussi pour nga am yoon il faut que yi jaar yoon. mën a askan bu takkoo takku ñoo nekk ci doon bu Kanda nag di jànkonteel ay jafe-jafe yi donte sax nag ki nga xam moo di maire bi di Fatou Sène jot na fa ñëw si jamono yi nga xamante ni nag mbënd mi gënoon na faa tar joxe fa ay digi wante ba jamono ñu toll nag France daal la askan bi nag di wéy di jànkonteel ay jafe ci wàllum assainissement bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fa. askanu Kanda yëpp nag seen i kàddu benn la mooy nag ñu jàppale leen eh, ci jafe-jafe gi nga xamante ne bi ñu ngi koy dund ci seen diwaan boobule wàllum yoon itamit doon lu leen soxal lool ndax itamit nag ngir woto eh, dugg ca diwaan ba jafe-jafe la seen kàddu ci micro Alioune Badara Diop. waaw loolu tamit si la am na de ndax dépanné bi moom tamit xam nga si la ànd waaye dafa bari daal li ngay de di dépanné si wele bi yenn saa yi da daw ba si yàgg sax amateur damm nga yooyu rek mooy loolu loolu rek xaalis la amateur bu damm moom soo ko génnee si versement moom dara dootu fa desati non yoon bu baax moom amuñu ko waaw yàgg nañ kaa lii maire bi moom wax dëgg yàlla moom moo ngi lu man moom si candidat bi fii waaye suñ sañoon daal yoon wi ndax yoon wi moom wax dëgg yàlla métti na trop suñ côté ah déggalu ma la oto kay dafay jafee dugg oto bu jógeewul nii te nii sax léeg-léeg day fees ba oto du a yëw fee rek lay yëw ah si bureau rek fi mu ne nii xale yi si mag ñi si bureau soj maa du jeex mhm. barki démb rek laay jógee hôpital sama sët bii noonu tëdd rek bu xasee taw daal wér moom amut maire bi ñëw na ba taxaw fii de xool gaayam dig nañu nag waaye gisaguñ dara dara de dige rek la ñuy def at mu jot noonu la. at mu jot daal dige la waaw at mu jot dige de waaye gisaguñ ta ah déeg bi léegi sax tane naa ndax dégg bi sori nañu léegi waaye déeg gënoon nañoo jege te déeg sax léegi jeex na déeg bi dafa gënoon a yaatu waaye léegi dëkk nañ ko wër nañ ko mhm, wàññeeku na amoon na jafe-jafe de wax dëgg yàlla amoon na nu ngeen def ak yooy ak weñ ah, amul pompe amuñ dara ñoo ngi nii daal bu guddee daal ah. timis tëri nañ waaw man de timis tëri naa ndax yooyu baaxul waaw jeunesse bi ñu ngi liggéey di courte courte di taaba taaba mais liggéey bu tax ñu naan liggéey liggéey amu fa parce que jeunesse liggéeyam nekkul si Jakarta loolu focaliser te fii majeure partie Jakarta la ñuy liggéey bu amul ñu ngi xëy marché géej ñaari liggéey loolu fii sécurité non amul demeewul noonu parce que souvent gendarmerie dañu fiy jaar di def ay intervention guddi waaw moo tax problème sécurité moom demeewul noonu canalisation tane na rek dafa tane rek parce que canal mu ngi ni heure bu tawee dinañ toog deux jours yoo xam ne ni ñii duñ dem parce que am na ñuy dawal fii vélo foofu lañ dëkk dañu am problème génne seen vélo mais su demee ay deux mu xaw a tane ndox mi moom moom toujours même question même réponse parce que à chaque fois maire yi dañ fiy ñëw du maire bii kese même maire sortant bi noonu la dafiy ñëw beneen maire dafiy ñëw ñu amee problème dañuy jaar jaar jàll def ñu flash souvent nit ñi dañuy wax dañ ñuy nax tant que changement mënul am moom da ngay jàpp ne toujours dañ lay nax dañuy ñëw def flash problème am wàllum ndox am nit ñi jaar jàll ñu jàpp ne dañ nax rek parce que amagul benn résultat temps yi ñëwoon nañ fi di natt ñu laaj la 90.1 juróom-ñeent fukk yu toftal benn ci diwaan bu Kaolack nangaan xarala yees yi tax ngeen koy teewloo ca biti réew ñu dem ca beneen xibaar liggéeykatu mairie yi nag mu di intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales nag amal nañu daje janoo ak taskatu xibaar yi di ca fësal nag li nga xam ne sumboon nañ ko mu di bi nga xam ne sumboon nañ ko ci ne daal nguur gi na leen yokkal seen salaire tax nag itam ñu ngay joxoñ baaraam ki nga xamante ne bii moo di jëwriñ ji nga xam ne moo leen daal di jiite Aïssatou Condé nag mi nga xam ne mu nga bokk ca liggéeykat yooyu lee lañu ñu cay teewlu ay di wax ne rek tey suñu toogaay fii ku nekk ëmpalewul li xew ci dëkk bi ci Sénégal làq doom dóor doom moo fi am collectivité locale mooy parent pauvre administration du Sénégal amuñu salaire yu baax amuñu considération dañ ñu te kan moo ko def se la gouvernement du Sénégal ki nga xam ne moom moo ñu waroon na aar iir ñu jàppale ñu kooku moo ñuy dóor tey ñi nga xam ne ñoo taxawoon démb di wax naan dañu ñu war a fay suñuy augmentation ñooñu ñoo taxaw tey di ñu tan faalew ñu ñu rawatina nag suñu ministre de tutelle woon nañ ko ci njekk woon nañ ko ci teraanga tàllal nañ ko suñu loxo mais xool sax defuñu ko daf ñoo tànxamlu yeneen alternative lay ut pour faagaagal ñi kon nag tey jii chers camarades war nañu taxaw war nañu xam ne ñun lii suñu xeex la xeex bi du xeexu intersyndical rek xeexu travailleurs yi la travailleurs yi nañ jàpp ci lii nañu xam ne ku si nekk bu ñu augmentation bi duggee si sa poche nga koy def doo ko def ci poche intersyndical intersyndical nag mooy lëkkale mooy dajale dajale njaboot gi di leen teg ci raay yi mais nag buñ nee génn leen na ñëpp génn na ñëpp di génn bàyyi bureau yi ñuy toog di wax li ñuy wax nañuy génn di xeex xeex bi parce que lii dafa jot nag ñu génn nag jàmmaarloo ak ñii nga xamante ne ñii ñoo yor tey réew mi ndax nag wax dëgg yàlla ñun xeeboon nañu lool li Macky Sall doon def waaye nag moo gën foofu lii ñuy taxawee tey moo gën foof ndax ñun premier ministre Amadou Ba recevoiroon nañu teg ñu ci raay yi def projet de décret bi ba mu des signature mais ñii lépp la ñu remettre en cause bëgg ñu delloo à zéro di ñu owaat ci ay négociation ay waxtaan waxtaan yooyu sax nangootuñ war a def dañ ne bukki bu yabee gaynde ca doxin bala ñun nañu xoolaat suñu bopp ñi ñuy wax grève leen ñuy daw di nëbbatu ji liggéey yi nañu arrêté nañu arrêté loolu du fulla du fayda nañu arrêté buñ ñu réquisitionné nag nañ dem liggéey kuñ si réquisitionné demal liggéey parce que on ne peut pas être la loi mais képp koo xam ne réquisitionné wu ñu la toogal nga def sa grève ni mu waree loolu mooy fulla mooy fayda lii ñuy fay nii du dara ku ci fay courant fay si ndox xam nga ne doo dese dépense kon nag augmentation yii c'est légitime et la loi loi moo ñu ko jox ñu ñaanuñu saraxtuuñu ñu fenn dañu nee nañ ñu jox li ñu moom augmentel nañ ñëpp secteur yëpp lañ augmentel ba mu des collectivité locale et nous sommes la locomotive de l'administration sénégalaise Euh, Mamadou Bamba Diop nag bokku ca liggéeykatu mairie yooyu lee moom ak la muy xamle mooy daal ñoom du ñu dellu gannaaw benn yoon daal dinañu xeex xeex bi ba waxtu nag ba ñu amee la ñu bëgg ci seen salaire euh, doom ci waxukaayu Arona Niang xeex moo ñuy may ndam ñu fas yéene ñun ñëpp taxaw jonn taxawaay bu mat sëkk fas yéene doon benn xeex ko ba keroog ñi am ndam ci biir kenn yaakaar ni mën nañoo xoxatal wala mën nañoo def dara loo xam ni ñun suñu bopp dana ñu tegg suñu tànk fasuñu ko yéene muñ dañoo xeeb aksi kon nag xeex ba jot seen ñu jox suñu yëf wax ju leer la moom fees del tey waaye nag dafa am nañu la muy xam ni am lan laaj ñun maanaam yokkute salaire la laaj boobaak léegi yokkute salaire bi amoon ci administration moom la laaj kañ la amoon mai dañoo yokkal enseigne jàngalekat yi pare yokkal presse personnel de santé pare yokk ci administration générale yëpp appliqué ko depuis le 3 août ñun nag yokk boobu lan la dañuy d' abord revalorisation des salaires mooy maanaam agent administration yi dañoo war yokk seen salaire salaire bi ci ndaw mi ngi ci jëm ci ku ci nekk par hiérarchie la hiérarchie bu ñu paree ci loolu ñu ni dañoo am relèvement point indiciaire loo xam ne loolu calculé ko war nañ ko dugal bi loolu am na ñu ni loolu par rapport à ça donc nañ bind kayit goo xam ne aussi dana waree ni agent fonctionnaire non fonctionnaire yi ñoom ñëpp dañu war a bénéficier lii lañ fi laaj de ministre bi nag ñaa ministre mu recevoir ñu ci prise de contact ba muy doog ñëw ci première semaine ñun ñëpp ñu rafetlu ko ni ministre bi day vraiment maa wax ci kaw mu dégg dara tegu ci la li que il n'a rien compris du dossier il n'a rien compris du dossier et wax naa gis naa benn kilifa gu mag boo xam ne ci affaire mu waxee keroog bu mu nee ne ba mu il n'a rien compris il n'a rien compris boo xamul nag tey doo ñëw bul hésiter bu làmbaatu ñëwal toog wax ak nit toog wax ak Euh, ministre boobu sax ñuy joxoñ baaraamu tuuma mooy Balla Moussa Fofana mu di jëwriñ nag gi ñu dénk wàllum urbanisme ak collectivité territoriale àdduna ci nag liggéey la indi itam nag ay leeral ci grève liggéeykatu miir yooyu li ak nag fu état toll ci seenu mbir euh, kàddu jëwriñ ji Arona Niang moo ñu ko taataanal. tam li nga xam ne dama koy vraiment préciser ñëpp xam ko benn loi rek moo am ci domaine boobu c'est la loi de 2011 votée par Abdoulaye Wade la loi qui concerne des fonctionnaires loi bi waxul agents municipaux waxul contractuel tuddul sax agent non fonctionnaire benn statut rek la loi bi visé mooy fonctionnaire yi nekk ci municipalité yi waxul ñi nga xam ne c'est des contractuels recrutés par les mairies bu loolu weesoo revendication bi ngay gën dégg ñu lay wax dañ naa la dañu bëgg bu ñu waxee fonctionnaire teg ci sax agent non fonctionnaire sànq nee naa leen ne bi ñu jëlee dossier bi dañ ne ministère bu nekk dañ ko jox responsabilité bi ñu bindee ministère fonction publique fonctionnaire de bu ko nit bëggee doon premièrement état mooy exprimer besoin recrute da ngay jékki-jékki dégg ñu ne état day def recrutement ñu génne liste recrutement yi soit c'est par titre soit c'est par concours donc l'état fait une expression des besoins ensuite on recrute soit par titre soit par concours bu la recruter fekk yow am nga plus de trente cinq ans ñu woowee la agent non fonctionnaire bu la recruter te yow bokkoo ci onze cadres yi nga xam ne mooy les onze cadres de la fonction publique comme par exemple un sociologue mënut a bokk ci benn cadre ñu woowee la agent non fonctionnaire donc même le dire rek agent municipaux wala agent bu municipalité yi recruté li am mooy te bañ ko jàngatee ñun loolu lañ gis au nom du libre administration des collectivités locales au nom de cette liberté que les municipalités yi ñuy exiger ne ñoom dañoo war a seen bopp te loolu c'est la loi qui le consacre bu ñu recruter ay personnel mairie yi ñoo am la responsabilité de la gestion de ce personnel la loolu mooy dëgg c'est ça le principe boobu en tant que ministre de tutelle principe la xam ne bu ñu ko wàccee rek ñu ngi wàcc ci li tax ñu naan décentralisation gox-goxaat yi am autonomie jël seen décision bopp gérer seen bopp waaye nag toute responsabilité day ñëw ak yoo xam ne da nga ko war a respecter bi ci topp mooy ci personnel biy liggéey ci mairie bi am na ñoo xam ne effectivement c'est des fonctionnaires ñooñu bu ñu laajee indemnité dañ ko war a laaj te loolu ñun état pare nañ accompagner bépp maire pour mu respecter principe boobu maire bu ci am jafe-jafe fay indemnité boobu li naan indemnité de compensation état pare na pour accompagner la ci fonds yi ñu yor pour nga mën a respecter principe boobu mooy fonctionnaire bi dañ ay indemnité mais ñi nga xam ne mairie bi moo leen recruter boppam ñu nekk des contractuels ñooñu amuñu droit di revendiquer indemnité bi ba di ci dem grève bay toog sa kër di percevoir salaire di paralyser service bi au niveau local te li ngay revendiquer boo doon wut ci ban loi laa ko wekk doo ko gis ci benn loi parce que benn loi moo am ak benn décret loi bi fonctionnaire yi lay wax décret bële agent non fonctionnaire lay wax wax naa ne luy agent non fonctionnaire ba noppi décret boobu boo ko ubbee doo ci fekk indemnité de compensation donc lii mooy vérité bi nga xam ne moo am Euh, juróom benn fukki milliards ak benn nag la ñuy laaj ñoom ñi nga xam ne nag ñoo di liggéeykatu mairie looloo waral nag seen pa grève euh, di xamle nag yu bàll Moussa Fofana ci wéyulu kàddoom Arona Niang moo ñu ko tàttaanal ñun bi ñu xaymaa impact budgétaire li maire yi recruter ñuy laaj indemnité bés bu ñu woon léegi dañuy appliquer ñoom li ñu dige woon ak ñee nga xam ne ñoo leen gëmloo ne mën na ne liñ leen war a jox ci koppar toll na ci 61 milliards ñaari at benn année rek c'est 21 loolu nit ñi dégg nañ ma wax ko mais revalorisation bi mi ngi am deux ans ci ginnaaw bés bu ñu changé décret yi ñu bëgg ñu changé ko daanaka état dana leen ameel 61 milliards ñu teg ko ci ndoddu régime boo xam ne mi ngi ñëw ba noppi principe yi nu bëgg a doxalee du principe yii la jàpp ne noonu la ñu war a mbokk yi dafa am solo ñu nangu ne réew bu ñu ko bëggee yor foog ñu nangu ay règles ki bokk fonction publique état def expression besoin mu def concours wala ñu recruter ko par titre am na droit laaj indemnité ki nga xam ne municipalité bee la recruter kooku lii ne ci contrat bi na ko respecté na jug dem liggéeyi ndax réew mi kat ñi fi soxla liggéey bari nañ te mënuñ koo am may demandé nag ñëpp xëy na am na travailleurs yoo xam ne ñu ngi jug di en di grève tey jii détails yi yëpp bu ñu leen ko expliqué woon xëy na ñoom duñ ko xam xëy na am na travailleurs yoo xam ne xamuñu ne grève bii en réalité 61 milliards lay laaj état du Sénégal am na ñoo xam ne xamuñ ne loi bii ñu naan loi sur la fonction publique boo ko gësloo terme fonctionnaire nga ciy fekk te moom xam na ne du fonctionnaire donc xam na ne warul grève donc communication bi di tax ñu vraiment bëggoon ko def mooy dañ ci jublu askan wi yëpp xam ne réew bu ñu ko bëggee bokk ñun ñëpp nañu ànd tegu ci li nga xam ne kenn ku nekk loolu la la loi bi may ci li nga signé ci contrat ak li nekk ci sa liggéey nga def li la war njuumte nag mën na am ci ni nit ñi di interpréter ak des fois mouvement bëgg revendication nga mobiliser gisee mais nag tey jii ñi nga xam ne am nañ droit am indemnité bu ñu leen xaymaa motuñu mille quarante li liñ leen mën a jox boo ko xaymaa mi ngi toll ci mille quatre cent milliards gis nga kon mille quarante personnes ba seize mille personnes recrutées par les municipalités te ñun ñëpp xam nañ recrutement yooyu généralement nan lay demee maire nag mënut a xëy rek recruter personnel boobu taxaw ne état central jox ma indemnité. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM Euh, dugg nañ ca ñaareelu xaaju xibaar yi ñu koy teewloo fépp ci diwaan bu Sine Saalum Bawol ba jàpp Waalo Mouhamed Sagna ñuy fekk ji nag ca diwaan bu Ziguinchor euh, ñi nga xamante ne ñoo di kuréelu FAB nag ñuy faral di yëngu nag ci àq ak yelleefu gone ñoom nag ñoo amaloon ndaje ngir dal di saytu ana na nañuy def ba indi saafara ci jafe-jafe ak xoqatal yi nga xam ne dañ koy teg tout tànk foofu li nga xam ne moo di ca diwaan bu Ziguinchor ñu dem ca daal di dellusiwaat. gëstu ci ay pexe yu ñu war a ngir xeex yu ñu nemmeeku ci ndaw yi rawatina ah, jigéen ñi mooy benn ci ay solo si nga xamante ne bii de atelier amal nañ ko fii ci bët saalum réew mi li ni mel nag acteurs yu yëngu ci wàllum aar ndaw yi ñoo ko daal di amal. li waral ndaje bi tey ñu koy woowee groupe d'analyse pratique mooy ni dañoo gis ni xale yi nga xam ni su borom dafay dogal ni ñoom dañuy nekk ay victimes ci viol maam ñi nga xam ne da leen sàkku xale yooyu souvent fi ñuy jaar ba ñu jëleen en charge dafay xaw compliqué ci ñoom ndax ci ay loxo yu bari na ni jaar te loxo yi ni jaar bu nekk dana fa wax di leen dal te léeg-léeg loolu dafay répercuter seen dund maanaam dafa leen di topp ñu ni kon nu ñu mën def ba nga xam daan wàññi loolu nees mën def ba wàññi loolu nag mooy fexe ba acteurs yi nga xam ñoo yëngu lu mel naka AMO lu mel naka waa police lu mel naka waa gendarmerie lu mel ñi nga xam ne ay association ak ay ONG nekk ci privé bi nu ñu mën def ba boole doole ba nga xam ni daanu jël en compte xale boobu atelier bi ni mel am na solo lool bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ñoo ci bokk ndaxte jàpp nañ ni fii ci Sigicoor kaa yi bëri nañ lool xoxatali bëri na bari na ba nga xamante ne bés bu yàlla sàkk di nga dinañ jot ay cas donc de dénonciation donc de ces violences mais ñu profité ci occasion donte am nañu cas yi nga xam dañ koy dénoncer mais wax dëgg fa yàlla gëm nañu ni am na cas yu bari yi nga xamante ne ñun jotuñu ko ndax nëpp nëppal baa ngi ci et c'est l'occasion pour ñu ne également ñi lancer invite à la population xam ne mbir mu aar ak ak yelleefu ndaw mbir mu ñëpp la ku ci nekk fa nga ne war nga mën a xeex loolu. Futuro présent ci bile projet fas yéene na daal. gën a yokk ay pexe yu muy teg ngir ñu mën a xeex ñaawte fiile fii ci bët saalum réew mi xabaaru faydu bi faydu bi xibaaru faydu bi yóbbu ñu ca lew Léona Niassène laylatul katmiya nag at bu ne ñu koy amal di ko màggale nag ca lew na ca buntu Zawiya Maam Alaaji Abdoulaye Niass ren ji nag dañu koy jagleel ki nga xamante ne bi moo di Cheikh Baye Mahmoud ibnu Maam Alaaji Abdoulaye Niass laylatul katmiya bi ànd ceeg ak Soxna Ngone Ndiaye. jëm ci guddi Cheikh ga ñuy màggal ca Léona Niassène ca buntu Zawiya Maam Alaaji Abdoulaye Niass ba at mu nekk nag comme na ko sëriñ bi daan sàkko dañuy tànn ab kàngam ci wàllu tarixa bi ba ci wàllu faydu bi daal di ko koy darajaale atum ren ji nag yemboog fanweer ak juróom-benneel bi édition kii di Baye Mahmoud ñas ibn Alaaji Abdoulaye Niass Al Kabir moom la ñu cëralee mbir mi moom Cheikh Tidiane Niass di ñu ko àggee waaw ren guddi gi ñoo ngi ko darajaale suñu maam Baye Mahmoud ibn maam Alaaji Abdoulaye ñas nga xam ne ñun buñ xamee ne sax li tax maam Cheikh Tidiane sampu kër moom da cee joué rôle bu am solo loolu ñun xamuñ ko woon buñ ko tuddee bis bi nii ci loolu lañ ko xam mais li nga xam ne yokkute la si ñun te moom ku ko yàlla may boo ñëwee nga gis ko li nga xam ne yàlla may na ko ndaxte amul kenn koo xam ne nangu nga sarak jiite la wala mu nekk sa sëriñ te loolu yàlla moom rek la ko may. ci lu soxal nag wàllu programme laylatul kadmiya boobee moom président commission d' organisation ba di Cheikh Tidiane Niass ne la daan def ci wàllum programme ko yokkul duñu ko wàññi. ci jouri kadmiyya gi dinañ xëy amal ay jàng al alxuraan ba midi jot dinañ amal tamit ay consultation gratuite maanaam xool nit ñi seen yaram may leen ay garab ñu ci ànd ak docteur yi nga xam ne ci xadara bi lañ bokk ñooy jugee fu nekk ci Sénégal pour ñëw xoolal nit ñi seen yaram. bu weesoo nag li ñu tàmmoon a gis ca cérémonie officielle ba ci teewaayu imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Cheikh Seydi Alioune Cissé ak ca jotaayu guddi gay am itam ci teewaayu Cheikh Mouhamadul Mahi itam ñu ne atum ren ji nag mënees na fay séntu ay coppite muy ay innovation ak i surprise yu bare bari. waaw guddi gi moom dinañ ci indi innovation yu am solo commencé woon nañ ko at yi passé waaye ren dañ cee bëgg indi loo xam ne képp koo xam ne ñëw nga rek boo jiisee di nga xam ne ñii toog nañ ay weer di xalaat ci guddi gi indi ci ay innovation yu am solo lu ci mel ni ci wàllu tànt ba dinañ fa indi ay innovation yu rëy ndaxte conférence boobu ma leen doon wax ñu war ko def at si Ahmed Boucar ay gone ñoo ko doon def ci xadara bi ren ñu bëgg innovation indi koo xam ne day gëstu te xam na Mame Alhaji Abdoulaye Niass ñu ñëw indi ko pour mu waxtaan ñu si Mame Alhaji loolu ci innovation yi la bokk conférence bi ñu def si guddi gi tamit war ci ànd si Abdou Aziz Ndiaye ñëpp xam nañ taxawaayam ci pays bi moom tamit loolu ci innovation yi la bokk ñoo ngi ciy xalaat bu ñëwee ba ci guddi gi dinañ ko indil nit ñi ñu xool ko te buñ ko gisee seen xool dina sedd. jaare ko ci kàdduy président commission ba ñoom waa commission d'organisation ba gannaaw ba ñu gisante ak ñoom ñu ne nag lépp li leen war ci wàllum taxawaay ci ndigalu kilifa yi jamono ji ña nga ca ànd ak ba tey ca seen i kàddu sant nañu bu baax a baax préfet jiwaan bi ci taxawaayam jëm ci wàccaayu guddi cheikh gi. Cheikh Tidiane Niass nag moom mooy président commission organisation guddi Cheikh muy kat mi ah, dikkaat na nag ci waajtaayu guddi googule ak tëralinu programme yi kàddoom soxna Ngoné Ndiaye moo ñu ko taataanal. guddi Cheikh gi ren ñoo ngi tollu ci fanweeri at at juróom-benn bañ ko dalee def ak léegi si luñ jàpp ah, programme bi ren bi moo ngi war a commencé samedi bi nga xam ne moom la ñuy jub muy fukk fan at juróom-ñaar ci weer yi août ñu war cee def daayira bu ngand boo xam ne dañ koy kii pour waajalee ko guddi gi war cee ànd ak ay sikarkat yu mag mel ni Baye Demba Camara nga xam ne moo féetewoo fii ci xadara bi Papa Thiam ak Baye Thiam nga xam ne ñun ak ñoom dañoo yàgg trop depuis daayira bi di daayira bi ba tey la ñu am ci benn invité boo xam ne chaque année day am bébét pour ñëw ci guddi gi mais yàlla daanu ko sottil ba ren mu bëgg ñoo ñëw ci daayira bi bokk kook ñu ñu koy wax Baba Gaaj dëkk fële ca Ngij ñoom lañ war a ànd ci daayira bi ñu war a def samedi bii nga xam ne mooy le 17 août ci buntu kër Serigne bi bu 22 heures jotee lay tàmbali nekk ne dinañ def ay set setal comme niñ ko daan defee war ci ànd ak waa UCG seen coordonnateur bi sax oo na ma ba ne ma dina ñëw xool si ak nu ñu war a jubloo ci bale moomu noonu xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass moom mi nga xam ne mooy borom guddi gi depuis guddi gi ñu tàmbali ko ba tey moom lañ ci ànd ak ci ndigalu magam ju baax ja Cheikh Alhaaji Abdoulahi Ibrahima Niass di ko ñaanal yàlla saa su nekk moom moo ñu boole woon ak moom guddi gi mu fonk ko lool di ci teew bàyyi ay yitteem ñëw ngir teew ak ci guddi gi di ci feggoog ay rakam Cheikh Mun Amina Ibrahima Niass nga xam ne at yi mujj yi moom mooy ñëw teewee guddi gi waxtaanal ñu waxtaan yu neex delloo ñu si yàlla bu paree ñaanal yàlla rakkam tamit Cheikh Abdoul Ahad Ibrahima Niass féetoo fële ca Nigéria ñëw moom tamit bokk ak ñun guddi gi yëpp moom organisation bi sax moom da cee bokk ndaxte si taarix gaa dañuy wax ne daayira bi moom si ñu ko sof si la bokk tam moom ba mu ñëwee ba tey bawut day ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi lépp lu ñuy def mu ànd kook ñun di xàccandoor di dóorandoor moom Cheikh Abdoul Ahad Ibrahima Niass ñoom la ñuy ànd ci guddi gi Eh, ci wéyalu kàddu Cheikh Tidiane Niass nag mu ngi ñuy xamal ne guddi Cheikh eh, ca buntu Zawiya maam Alaaji Abdoulaye Niass ca lew na ñeseen nag dañu ko darajaale ay kilifa ak ay kàngam yoo xam ne yàgg ñoo taxaw eh, ci nag taaraayu guddi googule wéyalu kàddoom ci waxukaay soxna ne njaay guddi gi naa ren dafa particulier ndax ñoo ngi ko tuddee suñu maam Mahmoud Abdoulaye ñas ak ñi nga xam ne mooy yaay Cheikh mun Amina Ibrahima Niass ak Cheikh Abdoul Ahad maam Ndiaye moom tamit ci dañ ko dara jaalee si doxalin jamono ki nga xam ne moo mbébét ngir ñu soppi zaawiya maam Alaaji Abdoulaye Niass bi di Cheikh Ibrahima Taïb Niass ñu gën koo xam ci Cheikh Baye Oumou moom tamit dañ ko ci delloo njukkal ci guddi googu noonu ndax mënuñoo def guddi gu toll nii ci roon maam Alaaji Abdoulaye Niass moom mu ñëw def liggéey bu am solo bii nii te duñ ko ci delloo njukkal moo tax ñu ko ciy delloo njukkal ki nga xam ne doom la ci kër gi di Cheikh Ibrahima Diallo nga xam ne guddi gi guddeem la bu guddi gi buñ ko jàppee dootul am benn jot ci loolu lay nekk ak ki nga xam ne mooy Ousmane Noël Dieng nga xam ne xaritu sëriñ bi la ba suñ sëriñ Mouhamed Cheikh Tidiane génnee àdduna ba mu ñëwee di jaale dafa ñëw rek ne sëriñ bi dama lay yóbbu Fass te ni mu ko waxee noonu la ko defee te lépp lu muy def da koy oo ba mu ñëw bu ko sëriñ bi ñaanalee mu soog cee tàmbali moom tamit ñu ko ci delloo njukkal ci guddi gii nii dinañ ci fàttaliku tamit ñoo xam ne suñuy maam lañ ku ci jiitu rek ñii suñu maam ami ba xam ne soxna la woon ci Baye Cheikh Tidiane Niass danañ ko ci fàttaliku ak suñu Baye Cheikh Ahibou Ibrahima Niass nga xam xam ne daa amoon taxawaay bu am solo ci guddi gi musu ñoo jàpp guddi gi te demuñ ci moom ñaan ko ndigal mu ñaana ñu yàlla ñu soo a tàmbali liggéey bi ak ki nga xam ne bokk la ci ñoom imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé mi Zeyda Ndey Cissé moom tamit ak ñi nga xam ne dañoo dëkkoon ak ñoom fii mi Zeyda Ngóone Juk ak Alayi Ndeka dañ leen ci fàttaliku ak suñu baay Moustapha Thiam di doom ci suñu maam Ibrahima Thiam Gaynde dinañ ko ci fàttaliku ak ki nga xam ne taalibe la woon ci maam Cheikh Anta di ñi jaay ci ci ñi féetee ki nga xam ne mooy yore kàddu kër gi di Cheikh Ibrahima Niass ñu gën koo xam ci Baye Tuuti moom tamit dinañ ko ci fàttaliku. xabaar yi bitim réew. xibaaru biti réew yi Alioune Badara Diop maa ngi lay dalal. maa ngi di ziar baax a baax soxna Mariama ci ajuma gi xibaaru bitim réew yi des koy doon na ci réew bu Guinée Conakry nga xamante ni jot nañ ko fa nemmeeku nag li ni na loo xamante ni nag lu doy waar a nemmeeku bëri bëri yoo xamante ni nag ñu ngi nekk ci biir ndox mi la nag wàccoon ci mbedd yi nag doo yëng bi nekk foofu ci réew bu Guinée Conakry àddu ci nga xamante ni askan ngi ko jàngontele nag ci fàttali nag taw bi nga xamante mu ngi amoon ca bésub àllarba mi génn fukki fan ak ñeent ci weeru août doon loo xamante xamante ni nag lu jéggi dayo la ndaxte nag ndox mi nga xamante ni wàcc na foofu ci réew bu Guinée Conakry nag fokk nag weesu na ko foofu lay loolu waraloon nag ñu wàccoon ci mbedd mi nag ñi nga moo bi am foofu ci réew bu Guinée xabaar yi bitim réew wax ci feebar bii di variole du singe ginnaaw bi nga xamante ni jot nañ jug nag ngir kat jéem a saytu li nga xamante moo di feebar bi ni mel ci réew Afrique yi nga xamante ne jàpp nañu ni feebar bile di variole du singe mu ngi fi gën a am doole yi loolu doon loo xamante ne lu jéggi dayo la ba nag kuréel gi di OMS di organisation mondiale de la santé gën a jëmmalaat ay mébétam ñeel li nga xamante moo di feebar bi li ndax ñu ngi nemmeeku nag nii mooy gën am doole ci réew Afrique yi léegi ginnaaw bi nga xamante jot nañu xibaar yi lay jóge ci directeur général bu organisation mondiale de la santé di àdduna situation bi bi nga xamante jamono toll nag ñu gis ne mu ngi gën a yaatu ci ni ñu ngi bokk ci Afrique saw bi. xabaar yi bitim réew. ñu jeexale xibaar bitim réew fële ca Nouvelle-Calédonie wax ci benn doomu aadama boo xam ne dañu ko te ñu def lu mel lu ñu ñu dul way gendarme yi nga xamante ni dañ doon sox ay balu fetal bi ni mel la mën jàpp na moo di fukk ak benneelu doomu aadama yi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci jamono yi nga xamante ne crise bi mu ngi am foofu Nouvelle-Calédonie situation bi ni mel na doon na loo xamante ni nag lu jéggi dayo la ndaxte nag ñu ngi nemmeeku yoo xamante ni ñeel ak way force de l'ordre yi foofu ca Nouvelle-Calédonie ginnaaw bi nga xamante ni door nañ nag ñaxtu yu ni mel ci ndorte weeru mai bi ñu génn ba jamono toll mën na si jàppale nag jàmm moom amatul foofu ca Nouvelle-Calédonie jàppante yi moom day wéy ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi sukkandiku ci kuréel gii di AFP di dëggal nag xibaar yi nga xamante moo ñeel situation bi am foofu ci Nouvelle-Calédonie ba jamono toll nag gis nañ benn doomu arme ñàkkat toll mu ngi toll ci fukk ni ñàkk nañ seen bakkan ci fitna yi nga xamante sant la gërëm la bu baax a baax soxna Mariama fii la ñu yem ci xibaar bitim réew yi yàlla mi borom jàmm ku ma yàmbal nga am jàmm yàlla ñu may jàmm juma mubarak xibaaru tàggat yaram yi Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Mariama Ba maa ngi lay fay te nuyu bokk auditeurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci ñoom di leen ziar ci àjjuma ji xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doori ak football door na ca bitim réew ca Espagne Liga espagnole bi démb. Atlético Bilbao dafa tëw ak Getafe ku nekk benn bal nga sa morom Betis Séville bu Youssouf Sabali moom it dafa tëw ak Gérone ku nekk benn bal nga dugal sa morom. tey Celta Vigo dina laaleeg Alaves bu juróomi waxtu jotee Las Palmas dina laaleeg Sevilla FC bu juróom-ñaari waxtu jotee ba teg euh, fanweeri simili dina door bëccëg bu njëkk ca Ligue 1 ca France Le Havre mooy dalal euh, PSG 18h45 lay doon. ca Angleterre nag euh, moom it bu njëkk bi tey lay door Manchester United di laaleeg Fulham bu juróom-ñaari waxtu jotee foofu ca Angleterre sax kii di Eliman Ndiaye. fu mu toll nii nag euh, numéro 10 bi lay sol foofu ci club bu yees bi di euh, Everton ñu waxtaanee handball ak coupe du monde bi ñu jagle li ñu am yu yees fukki at ak euh, juróom-ñett kii di Abdou fay ak fareel Diop nag ñoom ñaari internationaux sénégalais yi nga xamante ni ñii di waa IHF sélectionné na leen ngir championnat du monde boobu nga xamante ni ci jigéen ñi lay am. foofu ca réewum Chine ñaari doomu Sénégal yooyu nag euh, ñoom jàll nañ ci test yi ñu def yëpp moo xam ci mbind mi ci physique bi ak euh, ci euh, vidéo yi. final para basket nga xamante ni mooy tëj li nga xamante ni moom mooy championnat national para basket bi dimanche gi la ñu koy amal fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août ca stadium Marius Ndiaye final boobu nag dina dox ci diggante. ñaari dëkkando yi di Thiès And Basket Club ak ñi di waa Mbour And Basket Club ma goog Mariama Ba li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi juma mubarak li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf li ci yéene kaay ñu ànd ci ak Seydina Omar Cissé ah, ah. falaan bikum deret ju tuurooti bakkan yu rot ci kaw tali bi juróom-ñeenti doomu aadama ñoo faatooti ci ab accident bu metti ca yoonu Jurbel ba Vox Populi moo ñu ko xamal ni ki démb ci alxamis ji xam nañu bëri tamit ñu cax ma ay gaañu-gaañu digganteen ndulo ak xuur mbàkke hab camion gambien fafaa tampon rañaan hab kaar juróom benn doomu aadama fa ñoo faatu ca saasi ñetti ñe gannaaw ga lañ faatu am na ñaari xale nen ne tuuti ya fa nekkoon ñoom faatu wuñ ña nag Jurbel lañ dëkk fañ doon liggéey Dakar ba nag Touba bay ñibbisi ci lañ def accident bi fa métti fa daw yaram fa jéggi dayo turbine yéen a kaay na ko yëfi fa weesu jéggi dayo accident yi tali fa takkarnaase bët bu set presque nga dégg accident boo xam ak ñu dee ci kaw tali bi ci ndox mi géej gi gaal yaa ngi suux barsaak barsaak ci juróomi weer rek lu ëpp ay téeméeri doomu aadama sénégalais faatu nañ ci ay accident <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne tey ci àjjuma ji ci la député ya di xamal plénière ngir soppi seen règlement intérieur ba Sud Quotidien moo a te yooyu nekk assemblée faa lañ jàqal de na leen wóor ne assemblée bi moom fañ koy tas te du yàgg dara kenn ca député Mamadou Lamine Diallo na leen hëy fa jot ñu tas assemblée nationale bi ma ko waxee ca info yéene kaay ba tey yéene kaay bi fa ñoo xamal kër goo xam ne moom tas nañ ko ba pare fi mu nii mooy CNDT président Diomaye Faye moo jël dogal tas ko ba tax yéene kaay bi na ko fa ngaa këpp yalwaanu Benoît Sambou bi de ndax moo jiite woon kër googu di ci mos ko tasee fay fori new dootu neexleeti keneen ku neexlee tut mooy ki fi nekkoon jiite réew bu Sénégal Macky Sall xam nga boo nekkee président ba wàcc nekkatoo ko terewut réewum Sénégal falay fay ay weer jox la ay garde corps ak ay collaborateur anam doo dara daal waaye njiiti réew bi woon nag Macky Sall moom loolu yëpp fi mu toll nii yi joxuñ ko ko ba tax le quotidien na Macky fi mu toll ci misère la nekk coono bu métti ndax privilège am fañ ko ko xañ joxuñ ko ko te ba léegi nag kilifa yi jiite réew mi leeraluñ ko lan moo tax joxuñ ko ko la mu ñu jox moom tee mooy yéen a mooy bëgg-bëgg waa forum civil yi ak ñi nga xam ne fa a ndànk loi amnistie boobu nag kan lay jëriñ dëgg-dëgg maanaam kan la gën a arrangé Ibrahima Seck Forum ne man daal faa di wax leen loi amnistie bii fañ ko war dindi ak nu mu gën nag su ko defee képp koo xam ne fa ngaa rey ndaw ñu doon ñaxtu wala nga santaan ak yoon dal ci sa kaw teg la daan yi war ñeneen ñu ñu nar ay daan moo ñu sàcc milliards alalu réew mi ci jamonoy Macky Sall nguur gi fi newoon tey moo yéen kaay na kër gi nga xam ne muy pôle judiciaire financier bi fi mu toll ni ñu ngi ci virage bu mujj bi ngir tàmbalee lu jàpp gaa nekkoon ak Macky daan sàcc suñu xalaal ji ku sàccut nag na sa xel daal source a ne Adama Faye rakku Marème Faye Sall gendarmerie fañ ko xool woon takk der yi waaye fañ ko mujj bàyyi li tax mooy biñ ko laajee lam leen tontu xibaar ya fañ koy vérifier gëstu ko kon waxtu wu nekk mën nañ ko xoolu waat bu laajee fañ koy teg loxo kañu tegoon loxo nag jàpp ko tëj ko ñeenti at ba mooy Ibrahima Thiam a kaay moo lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Waly Diouf Bodian ma jiite port autonome bu Ndakaaru syndicaliste ya fa ñoo ñaawlu doxalinam fañ koo tuumal doxalin bu garaaw ak bu jaarut yoon bu mu nekkee ca kër ga li ñuy wax violation flagrant ci code des marchés yi ñu ne loolu la fa xamal l'observateur moo ñu ko xamal Dakar presse yéen a kaay ne Waly Diouf Bodian kay fañ koo kepp épinglé lii yéen a kaay moom kay fa waroon a jub jubal jubbanti ni ko jomaay sàkkoo waaye fa mel ni de ci diggante la nekk ndax intersyndical ya fa ñoo ñaawlu doxalinu seen njiit la Waly Diouf Bodian fa ñoo wax na fa amal violation ci procédure passation yi leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne xiiroo ŋaayoo bi doxoon diggante taskatu xibaar yi ak nguur gi fa mel ni yëf yaa ngay woyof de Sud Quotidien moo ñu ko xamal ah président Diomaye Faye conseil des ministres fañ ko dégg mu ne dégg naa journaliste yi doon ñaxtu léegi nag faa bëgg ñoom ñu xamal waxtaan ak gouvernement bi rawatina ki leen boole muy ministre bi yor wàllu jokkalante gi source a yéen a kaay mel ni ko naan ko très bien jërëjëf yow daal wana nga ne yaay bàyyi a ñàkkante ak journaliste yi ndax li nga wax noonu baax na bés bi yéen kaay na leen xéy waaye faa bëgg ngeen déglu bu baax la mu wax président Diomaye Faye fa wax ne fa ñoo war a appliquer de la presse bi te gis ngeen loolu buñ ko defee dana bëri rajo ak télé ba ci journaux yi di bind yoo xam ne fa ñoo nar a tëj ndax ñu bëri si ñoom respecté wuñ ko ba pare jël ay dogal te ñàkk fay impôt yi moom xalxalaatul ko sax bu leen di leer muy seen jàmm laas yéen na man kay faa xamut médiateur de la lan moo tax coowal journaliste yi waxut ci ne tekk rek bés bi yéen na jëwriñ ji ñu wàllu communication tey ci àjjuma ji lay tàmbali xamal lancement ci plateforme boo xam ne fa ñuy rajo ak yu nekk ci réew mi ñu xool ya ca jaar a kaay moom fa ñoo xamal ne Abdoulaye Diouf Sarr daal fa sàkku ci Macky Sall ak ñu leeralal waa APR ak waa Benno yi naka lañ xoolaanee bañ mbuqi leen mbuqi métti ci wote yi weesu fa wax na daal am na ay mbir yu yoo xam ne Macky fa ko war a leeral ak Amadou Ba man ma balool dem ci GP yéen kaay fa xamal ne réewum France fa ñoo nar a nangu ñaawtef gi nga xam ne fañ ko defoon suñ maam yi tirailleurs ya caaroy 44 ray gu ñaaw googu kilifay réewum France fañ ko nar a nangu ba pare jéggalu wala fa jëri yéen kaay moom fa ñoo xamal ne Adama Barrow njiitu réewu Gambie andi na saafara si jafe-jafe ya amoon ci chauffeur sénégalais ak gambien ndax dafa wàññi woon njëgu dund gi cher gi muy ceeb beeg diw geeg suukar si enquête yéen kaay nag fa xëy wax liñ seetlu tey ci marché bi mooy presque dara wàññeekuut la woon fa woon te gars wuñ ko ki bëgg a contrôlé màggal ak Tuubaa gi ba du am benn jafe-jafe du kenn ku may jëwriñ ju ñu dénk wàllu njënd ak njaay Serigne Gueye Diop fa demoon ca dëkk bu sell ba nee na waajtaay fa ñu jël matuwaay yi ba du gi ba du am benn problème jafe-jafe ci wàllu jokkalante gi muy téléphone ak yeneen yi ni mel ma nga ca témoin yéen kaay bàyyi laylatul katmiya ña ngi ko fay waajal wàllu yàlla bi nga xam ne nag moo njëkk a organiser guddig laylatul katmiya ci Sénégal mooy Cerno Xasan Dem muqaddamu Baay Ñas bu mag la dundam ak jaar-jaar ma nga ca biir yéene kaay ba libération moom fa ñoo xamal mbir mu garaaw bu xam ci wàllu tappale xaalis xalalu askan wi ca caisse de sécurité sociale ña ngay xayma daal lu ëpp ñaari milliards yoo xam ne gars yi fañ ko fa tappale te loolu baaxut lu baaxut ñaaw ba jégg dayo vox populi moo ñu xale bu góor agressé ko ngir nangu jakartaam ba borom jakartaa ba bañ agresseur bi daal di koy rey fi mu ko reyee nag bay jël jakartaa ba ne ma ngay daw ay nit gis ko mbooloo ma dàqe ko jàpp ko fa ñoo jàpp agresseur ba fañ ko dóor ba mu tàlli ñaret ñu ne déete waaye ñu sotti ko essence kos almet fañ koo taal lakk ko ba mu daal di faatu ñàkk ba kanam allah yëf yaa nga amee ca diwaanu Thiès waa ma ne dëgg la kenn warta fajal sa bopp ndax yoon a nga fi waaye xaw ma fan daal waaye Thiès ak quartier moom dootu leen fa déggati ko sàcc ko faray nit ndax fi mu toll nii képp képp ku dégg xibaar bi fay xam ne waa koñ bi moom ku fa ray nit fañ a FM juróom-ñeent fukk yu toftal la benn xibaar yi ma fegoo woon ci Alaaji Libaas Mbay ci machine bi ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñu doon teewlu xibaar yi kàddu gi doon bàyyi ko si studio Alioune Momar Lo ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé fii ci dëkk bu sell bi di Medina Baye ñuy ñaan rek yàlla muy borom jàmm ku may jàmm nga am jàmm yàlla yàlla may jàmm fu ñu toog di solo yu Alfayda FM juma mubarak jërë ngeen jëf. xibaar yi ak Mariama Ba.